Le forum du premier emploi s'est soldé par une réussite, une affirmation faite par des participants qui ont montré leur satisfaction. À l'occasion de cette 20e édition, les forumistes ont retenu plusieurs éléments sur l'ensemble des séances qu'ils ont suivies, des sujets qu'ils n'ont pas manqué d'expliquer. Euh, parce que ça a été bénéfique. Euh, C'est pas facile de venir euh, forum. euh, Au-delà de ça, c'est au-delà de ça. Même en partant de l'habillement, on doit être correct. C'est la chose que j'ai le plus re, euh, retenue durant le forum. On doit être correct. waaw euh, motivation surtout motivation ak tamit euh, lépp À travers les orientations données par les différents coachs, les forumistes disent être maintenant conscients du facteur bloquant durant les entretiens d'embauche. comment lors euh, de cette euh, de cette forum qui aura le le, du au 21 se tiendra au King Fahd Palace donc la manière dont on va se préparer notre posture aussi euh, notre CV la manière d'écrire notre CV ce qui nous attend ce jour-là. nous pensons que d'après ce que nous avons suivi euh, avec les différents professeurs donc nous avons retenu de belles choses quoi. Donc nous sommes sûrs que voilà, le jour J, nous serons prêts à relever le défi. Quoi. Juste pour dire que Frombi, je trouve que c'était instructif. Parce que bon, on a eu l'habitude de faire des CV, faire des lettres de motivation, déposer un peu partout. Mais bon, à l'aveuglette, je, je dirais. Parce que bon, il y a des choses à respecter bu fekkee da nga bëgg a wut liggéey te yaakaar naa ne nekkul ne da nga war a tëb tëb rek bind sa CV. comme ni ko gars yi tàmmee dajalal say CV boo rombee rek sànni bon après après forum bi maintenant on peut savoir nettement que y a des choses à respecter y a aussi bon des postures yoo xam ne war nga ko am bu dee yow da nga nekk jeune di wut liggéey am na posture boo xam ne war nga ko am ak benn bon benn taxawaay boo xam ne aussi war nga ko am face au Euh, tout d'abord maa ngi euh, nuyu ñëpp di remercier tamit euh, monsieur le président Mbagnick di ko encourager tamit di ñaan ñeneen tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo mel ni moom ñu suivre la même voie gën a jàppale jeunes yi parce que actuellement tamit Sénégal tamit réew moo gis tamit jeunes yi ñoom ñooy avenir bi gën ñu jàppale xam ni ñun ñi actuellement dañu soxla ku ñu jàppale suba tamit ñun tamit ñu bañ a fàtte ne ñun tamit dañu jàppale woon tey pour ñu réussir ñu ngi ñaan tamit li ñu fi jàngal ci atelier bi tamit mu nekk euh, lu ñuy retenir forum bi mu mën ñu aider ñu mën a décrocher suñu premier emploi. Satisfait, tel est le mot qui sortait de la bouche des participants à la 20e édition du forum du premier emploi organisé par le président du MEDES, M. Mbagnick Diop. qui n'a pas manqué de donner aux forumistes les derniers détails pour se préparer aux journées du 21-22 avril prochain pour espérer décrocher un premier emploi.